ki ñu suivre ci Leewtoo TV rek ni ngeen ko xamee Leewtoo la ak ndogulee koor gi du mën a ñàkk Talla Ndiaye tey ci roq lañ dugg ab roq fii ñu dugg nag mbërë ngi fi boo xam ne daal dinañ leen ko wan ngeen gis ko kon mbër maa ngi nii gis ngeen ko mbër maa ngi nii ci café Touba gi mbër maa ngi lay ziar. waay fi la rawee kay. yaa ngi am jàmm. waaw sant Serigne Touba kay. tey loo woote fii tey. waa xanaa santale bés bésu maam Cheikh Fall bi rek démb ñaar fukki fan koor gi waaw dem nag sama papa sama xarit Serif Tira la woote woon ko mu xatoon loolu moo tax démb defuñu ko dem léegi ñu nañ bàyyi ba ñaar fukki fan ñaar fukki fan ci koor gi benn ñu ñu ñu yaatal ko waaw moo ñu ñu defee ko nii daal sant sëriñ bi daal baax. kon ci kanam waaw léegi léegi sant yàlla waa pari ñu ngi fa. naka Paris mu ngay sedd. waaw sedd na waaw sedd na tuuti rek tey ñu ñëw si koñ bi gis papa teg mbana yi. macha allah pour fas yéene joxe tey ndogu. waaw chaque année dañ koy def ah. ñu ñaan yàlla suñu boole suñu borom dooleel ko kattanal ko di ko may kattan goo xam ne chaque année dina ko mën waaw. mais nag euh, xam naa ne daal dañ comme li ñuy wax rek dafa mel ni ginnaaw papa lu dëgër mu ngi ci muy Ndeye gay macha allah. waaw yàlla ak Serigne Touba ñoo gën a dëgër ak sey Seydina Mouhamed ñoo nekk ci ginnaawam waaw lool la. yow nga ñëw mottali. waaw man man soxna rek laa damay damay damay damay topp sama ginnaaw jëkkër rek. ci kanam dinañ waxtaan. waaw incha allah <laughs> allah. pain baa ngi noonu taala taala mburu maa ngi nii pain waa taala taala xoolal fii taala Baye Fall bu mag a mag bi mu ngi làng ak majji majji ak baro doomu ndeyu guy gi waa géej way waa mais liiru mbirum bis bu mag bi dégg naa bi toj nga géej a way tojee te ñëwoo loo ma ciy wax su ma ko tojee te ñëwoo loo ma ciy wax su ma tojee Guédiawaye te ñëwoo loo ma ciy wax. taala taala du ci man de. du ci taala ci yow mii la. waay déet waay. nga eh, garaaw da nga commencé am ñaareel Guédiawaye ba léegi da ngaa changé xam naa. aywa eh, bàyyi li nga wax de da nga commencé am ñaareel di ñëw fi du yoxasu di naan attaay bi ñooy. ki may eh, sa waay lu mu la wax may may ñaareel. kan déggoo ko. ah Balla ngay neen dina may ñaareel jéey neen la may ñaareel loolu dafa neex. waaye da nga garaaw. jéey ak ñoo ma dig ñaareel. Ah, ku nekk dig na la ñaareel koy loolu neex na. maa ji bëgg naa la. siyaar naa la baaw ga seen doomu ndaye woote muy papa waaw waaw waaw loolu am na oui xam rek lii moom lii bu baax la quoi parce que da def chaque année chaque année da koy def ñu teewoon ci daaw yàlla may nu fan wu gudd hmm? ñu ñëwaat ci ak kon lii daal lu baax la moom li ñaan yàlla lépp xéewal bu ci am rek ak bépp yiw rek yàlla suñu borom mottali ko oui tamit maa lay raw maa ngi fay loolu bokk papa papa Papa sama rakk la ci yaayam laa ndax maay taaw yaayam. mbana bi lan ngeen di togg nii. mbana bi ay tufe de la ñuy ni nii tufe waaw waaw. man ni papa tamit mu ngi jéem a góorgóorlu di jàppale doomu adama yi daal ci li mu mën. waaw loolu moom am na ñun ñu mu bokkal xam nañ ci dara mbedd mi xam nañ ci dara lu mu am bokkoo nit ñi. waa ndéegee nag dëgg ne yow xam nga dama koy xaw a gaañ toog si dënnam xale yi bëgg ma ma ñëw ba koñam yëpp déggal li ah, ah, léegi ka place ndéegee mm-hmm. ma mii moom ngi nii ñoo ngi nii toog suñu délégation waaw maa koy xaw a gaañ yaa nga gis mburu yi gis nga bisaab bi naan nañ fi bisaab bu neex a neex macha allah <laughs> mu mel ni daal gis nga jataay bi ni niñ koy waxee rek papa ak Ndeye Gueye papa ak koor gi sax laay njëkkee bala may yegg fële papa maa ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul maa ngi sant sama waajuru góor sama papa maa ngi koy ziar di ko ñaanal gudd fan ak wér mu fekkee sama njëriñ. woor waaw maa ngi woor waaw. ñaata fan lañu ñu wooragu. instant bi ñu ngi si 21 jours waa papa. bi muy nekk bi muy gën a nekk xale papa mas naa waru gàlle mun da ñàkk noo ko defee woon ak ku la jàppoon non ñun moom dañ doon dañ pour ñu jàpp ñu daawul yomb ndax daaw ñu ko defee fii dex meew lañ doon dem ñun ak ñoom maca ndam si yàlla si ay Aziz xam nga suñ mosaan dem bi dex meew bu ñu wooree fii génn dem demee sàcc ay gerte tubaab lekk suñ ñëwee fi kenn du xam ndax war nañu mais ñun leer nañu leer yàlla waruñu mais bu ñëwee di ndog ñun suñ jëm bopp ay ree la ay ndog bi ay la ñuy def quoi. léegi su ma ñëwee ci yow en tant que jullit buy woor tey boo amun looy wax julit buy woor bu woor passé ak ci biir koor julit nu mu war a nekkee. waaw comme ni ko ni ko ni ko jullit war a nekkee rek waaw ndaxte nit ki moom koor ak sudul koor da nga war a jaamu yàlla mais nag. comme sénégalais yi moom yaakaar naa ne koor rek la ñuy mooy ñëw ñu ñu nga gis jullit yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw waaw waaw koor rek mais bu dul koor amaana nu mu war a demee du demee noonu te yàlla dëgg la weer wi fonk na ko trop mais fonk gi moom avant weer wi la. Ndeye bëgg naa la. fay naa la Babacar. Ndeye ñu ngi ci weeru koor yow moom faw ma laaj la ndax est-ce que yow mi daawoo war-waru gàlle. non man moom man moom wóoruma man ni may wax parce que sama jógee ci feebar. mënuma actuellement nii woor waaw dama dama feebar xam nga depuis sama feebar ba tey dañ maa tere ay affaire woor ak yooyu waaw. loolu moom yo. donc permettre wu may woor ak affaire mais tey ñiy woor ñu gis dimbalante bi di yaatu ci réew mi comme ni ko papa waxee ndax dañ ko war a yemale ci weeru koor wala fa war a continuer. waaw man d'accord ma ndimbal gi muy yem ci weeru koor. dañ ne ah, ku sa loxo jot sa gi sa kanam na nga dimbali ñi seen loxo jotu seen ginnaaw loolu laay yaakaar dama yaakaar ne kuy def lu baax doo ko yemale pour weeru koor rek da nga koy def pour toujours waaw man loolu laay gis quoi warul yem weeru koor waaw. mais damay ñëwaat ci diggante Ndeye Gueye ak Papa parce que xam nga xëy na wax nañ ci waxati ci waxati ci mais nag dafa nekk loo xam ne ba tey am na ñoo xam ne xaw na ñu ngi ciy wax ak waxaat donte sëy la yàlla na yàlla barkeel sëy bi la ñuy ñaan barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais daf ci côté sport bi la ñuy la laay ñëw man parce que làmb la ñuy wax ñun. moom dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañuy xalaat ne sax papa est-ce que du pression moo koy sonal si ay kombaam parce que waaw. non non man gëwuma loolu gis nga euh, nit sa destin mënoo ko jéggee boo ko jéggee rek safaan wa am lu yàlla am rek lu yàlla def rek nañ xam ni yàlla la parce que làmb bëri la daan ak daanu da doon daan muy neex du dëgg kon bu daanee ne ñëpp comprendre te bàyyi wax ci te lu xam ne lu am rek yàlla suñu borom la man falaa laa ko teg nañ jël lépp teg ko ci loxoy suñu borom waaw ay pression yooyu yëpp amul lépp yàlla la lu am rek yàlla suñu borom la barke sëñ Fall lu am rek yàlla la nañ bàyyi ay waxu ay pression loolu tey bu daanoon kenn du wax pression bu daanee ñu bu daanoo ñu wax ay pression nañu bàyyi nañ jël lépp te ko ci loxoy yàlla yàlla suñu borom moo mën lépp mooy def lépp te lu mu tracé ci nit ki looloy am ala kulli looloy am kenn mënu ci dara. léegi su ma ñëwee Euh, ànd bi comme ni ñu wax yàlla na ko yàlla gën a dëgëral mais tey ngay soxna xam nga Sénégal yëpp xam la mën naa sax ngay international yàlla dogal ngay tànn ki nga bëgg di sëy ak moom ak niveau bi nga toll loolu loo ciy wax sa moroomu jigéen ñi ak ñi nga xam ne ni tamit maanaam daal ci mbirum sëy lan nga leen di war a yokkal parce que ñu bëri sax des fois ñu naan nday géey papa nday géey papa di ko gisee neneen te yow nga def ko te jàpp ci ci ne lii nga bëgg. barki démb démb demoon seeti benn kilifa. mu ne da doon waxtaan ak lu bàcc li samay wax ni ko damaa bëgg jigéen ñëpp di jël référence ci ndéegee bi ma ñëwee maa ngi koy nettali papa sax bak sëñ Tuubaa te suma gis te démb la ma mës a gis donc taaru jigéen mooy sëy ah. ah kenn ku nekk am nga droit gis ka nga bëgg rek nga sëyal moom man kii du sama jëkkër sama doom la loolu laay wax sama doom la sama xarit la sama complice la sama lépp la waaw dañuy partage lu ne dañuy wax soo ñu fekkee da naan ñaar ñi dañoo ràkkaaju da nga naan c'est pas possible ay coosaan rek ay du ma mujjee ay dóor rek sama gaañ la sama xarit la waaw sama xarit la sama xarit la sama xarit la ma koy ñaanal yàlla yàlla mi am fay yàlla na ko fay ko ñaanal suñu borom lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom defal li may wuti si néegu sama néegu sëy bi ci moom yàlla ma ko suñu borom defal waaw man nag gëwma yi gars yi gëm man man ak gars yi bokk ñu gëm-gëm man gëwma loolu dama gëm ne Baye Fall ak Yaay Fall suñu borom boole leen waaw man loolu laa gëm man yi yi gëm gëwma loolu sëy ak mbër na xaw na metti amul xaw na metti sax dafa metti lu ci metti lépp a metti lépp a metti lépp ma ciy tënkal yow loo ci jàpp lépp a metti du la tënkal dara di bàyyi bari dara dama laaj buri bàcc li wala nga jaa laaj xuj da jabaru ëmma seen dafa metti de xam naa gàllaaj yaag yamu àndal ak laaj jabaru Modou Lo topp yaag ñoom seen ñooñu ma gën a sonn fop téeméeri junni yoon ñooñu li sonn man sonn gu ma xaaj bi sax c'est que ñooñu kenn da leen xamul rek waaye bu ñu leen xamoon ba ñu toog di wax li ñuy daj bu seen jëkkër amee làmb ak bu dul làmb sax moo kon dooma laaj dara wan kon danga may jëlale teg ma nala de côté ñooñ ñoo war a wax man waruma wax dara yàlla gu ko bu baax bu ko yàlla dimbalee dinaa gën a sonn bak sëñ Fallou billaay kon daal buñ ne xam nga Sénégal fii dañ naan aawa ñaareel ñetteel ba ñeenteel wala fii aawa rek fi am wala non lépp mu ngi dépendre ci moom xam nga góor la am na droit am ñeenti jabar waaw man maa ngi toog man ku ñëw fekk ma fi kuy dem baay ma fi bougé wu ma lu toll ni centimètre xanaa wax bi jeex na. ku ñëw te demul nag. ku ñëw te demul rek ma toogandoog moom uuf ñëpp may ndey ji seex njaaxaan naa lay te dem uuf ñëpp. kon tey bu gisoon ku mu bëgg. ba ma fi kuy ñëw ba kuy dem fekk ñëw ba ma fi. su gisoon ku mu sopp keneen bëgg ko def ñaareelu femme di nga ci ànd. xajal ko mu ñëw xanaa wax ji jeex na. c'est sûr. waaye doo toog wax daa am wax dara amul. ala caala Ndiaye. ala moom bu ma pirate sama yëf la xaala ala. xaala ala yaa moom. lamb yi no journaliste nga yow xam nga. waaw ah, yow xam nga ñaari kombalaa def. léegi damay ñëw sa combat bi mujj lu ko xañ papa. waaw d' abord yàlla. waaw d' abord yàlla ah. mais mais yàlla xam nga yàlla ñu ñëpp moo ñu sàkk moo ñu moom mais dañuy bëgg ci aspect sportif yi ngeen di ci wax mais suñ kale mbiri foofu rek maanaam yow est kon di nga a corriger sa bopp pour sa prochain combat maanaam techniquement ak ci wàllum physique ak mental ak yooyu lan moo la xañ combat foofu laay waxee quoi waaw xam nga nit mënoo commencé dara te doo commencé suñu borom loolu mun da ne voilà léegi ñun ay doomu aadama lañ ak ndaama est ce que ndaama war na yuutu di njool wala parce que ni nga bëree est-ce que nga waroon bëri ak moom. waaw làmb chaque jour nit bëree bëri bu gën a jaar yoon bëri bu ma bëri ñu daan. waaw mais du dara kon ñu ne bëri na ci yoon mais daan nañ ko lool moom mën na am. waa daan nañ ko si yoon ak daan nañ ko si yoon lan mooy différence bi. maanaam xam bu ñu ne ki daan nañ ko si yoon ça veut dire que fi fi mu war a teg bëri bi teg na ko fi ba ñàkk ñëw mu ñàkk waxuma la tegoo fi mais est-ce que ni nga songe ji waa ji. waaw néew nit bu ko tegoon si yoon rek daa war a daan su fekkee teg na ko si yoon rek daa war a daan. waaw nit ki chaque jour rek yàlla mooy xool lu ko neex nit des fois nga def luy yoon suñu borom dalay xañ des fois nit ñoo def ay erreur yu ba pare daan làmb chaque jour noonu lay tëddee. papa fu mu jëm. man comme d'habitude rek carrière laa war a def carrière bi ma war def saa nangam combat bëgg naa ka bëri. dama dégg ci woowu ba ñu da doon laaj Tapha Mbeur. non Tapha Mbeur mosuma ko laaj. man Papa Boy Djiné ma taxaw ne sox jox leen Tapha Mbeur Sidi Ibrahima Fall xam na ne mosuma ko wax mosuma woo promoteur sana ko sama combat man ak Tapha kon sa xel ci ku ne ñëpp mais moom doo bëri gi moom gisawu ko noonu papa amul pression si biir lamb actuellement ni dafam am sam benn sam benn góor gu baax nee na ma papa mu naa mu ne ma lamb ñi la war a daan par force dañ lay daan mu ne boo dajee ñi nga war a daan boo leen di daan làmb ji dañ la tam ne dañ ko tam mu ne ma des nga ñëw ci géewu làng tournoi ñu naan disqualifié nañ diw disqualifié nañ diw mun ngaa bëre ñetti combat am doo bëre ak adversaire dañuy woo adversaire bi ñëw ñu disqualifié ko benn combat ngay bëre dem finaalu ji soo xefee da koy jël mais est-ce que bu daje woon ak ñi ko war a daan dina dem man ñi ma war a daan ci làmb ala kulli dañ may. ren pare nga pour jëlaat combat. wax baaxul la baax na. <laughs> wala ñu ngi dox sa combat. waaw actuellement promoteur bëgg nañ sama combat mais adversaire yi ñoom ñooy ñoom ñooy xaw a dellu ginnaaw. am na mbër mu ne ba Maroc daf maa yóbbante ci yow Pakala Junior bu Kër Mbaye Fall ne dafa daan sa doomu ndey dund ne yow la bëgg nga ñëw ngeen jàmmaarloo parce que ñaa ngi wax seen combat te jàpp na ne da ngeen war a bëri. Ah, sama xarit la sama mag la mënu ma di wax sax lu bëri parce que. comme man su ma amee bés ni mu ciy ni mu ciy daj ak ni mu ciy dund man dama koy dama koy yëg man dund ñooñu maanaam ñun benn lañ boo laalee kii laal nga kële boo laalee kële laal nga kii maanaam waxuma pakala kase de mais adversaire bu mu mën a doon bu jëflanteeg dund wala nga jëflanteeg maca wala biir gunaas fii cat bu waalo waa lañ say deux nga daan leen ñoom boo leen fayul boor bi man moo dajeeg yow bor bi dama koy jël si yow force. kon kay ko dox sa combat ak pakala ngeen bëri xam naa ne ci ma la wax ci ni ma la dégg. déggoo ma man man man maay bëre yow bëre woo léegi bëriwul man maay bëre promoteur man bu ma fay lu ma bëgg mais nag man bëriwuma ak benn mbër bu indi benn kaar esat wala ñaari kaar loolu mooy lan. man maa dépassé loolu. di bëreeg mbër di ñëw esat ngi nga indi benn car wala ñaari car. yow doo licence yow doo doo ñëw rek bëre boo waree daan nga daan yow kay même bu ëndee ab njaga njaay wala kalandoo sax yow est-ce que sa war nga ko régler wala. waa dama man bëreetuma ak mbër bu indi benn car stade wala ñaari car. su ma la déggee maanaam da ngaa dépassé ñooñu. beneen bu si topp man du ma bëre mbër moo xam ne cent mille lañ lay fay nga bëri. yow lañ lay fay. loolu laa wax. ban kase lañ lay fay. mbër moo xam ne da ngay fayeeku dañ lay bu sa kase bu seeree ba seer sa kase bu gën a seer cent mille la. bëréew ma ak yow mais est-ce que papa fi mu ne jàppul boppam mbër mu mag a mag mu ne ca kaw comme ñoom Balla Gaye wala ñoom Modou Lo non non man sama bopp loolu ngay dund loolu laay dund est-ce que kon loolu moo xaw a sonal ci làmb actuellement non non sonalu ma de ah non parce que loolu boo sonal ba tax yenn yi parce que tamit am na loo xam ne est-ce que dañ koy togg ba mu boo ko gëmuloon tey doo yegg si wala maa bëgg mel ni Modou Lo da koy gëm sa biir xol nga dund ko mais du tee ñun ay Baay Faal lañ ñun ay taalibe lañ ñun mënuluñ suñu bopp dara ay góor yàlla lañ ñun lépp lu ñuy dund rek maanaam si taalibe lañ koy teg. ay ñoddi wala affaire ru noonoo la affaire du loolu gis nga nit àdduna nit loo loo bëgg rek da koy gëm làmb ji mel dama ko bëgg fonk ko moo tax ma gëm ne man champion laa léegi nag damay liggéey loolu ànd si ak samay mbokk bu yàlla tuddee ne man champion bi ma gëm dama ci war a dama war a doon ala kulli dama koy doon. bu fekkee tey jii nii ma la su maay dama ka gëmul du dem. léegi fi may ñëw foofu la ñuy jeexal kële sax mooy tëj nday laaj naa ko léegi parce que réew mi dañ naan awoo ñaareel ñetteel ba ñeenteel papa ndax xalaat na am ñaareel ëllëg. waaw àdduna moom kenn xamul àdduna kenn xamul tey man suma xamoon suma suba du ma sonn. papa nag yow fi may kal dafay papa nag say wax day xaw doy waar quoi xam nga nag ma yóbbu ci foo xam ne day dugg ci zone boo xam ne nu waxtaan nii waaw war na ma a nekk wala waru mën a nekk rek wala aw bi rek doy na. waaw ma ne nit boo xamagul sa suba. waa dëgg dama dama maanaam dama lay bëgg a tënk foo xam ne maanaam da ngay xam. voilà nit ku xamagul suba subaam mënu laa wax dara dara dara dara dara mais sama tey boo ma laajoon sama tey tey tay mun naa laa wax li ma xam. kon tey fii nu toog nii moom ñaareel moom da nga koo tege ne. actuellement nii nii nekkagul sama bopp actuellement nii parce que boo xoolee kër gi actuellement. lu fi war a dugg man maa ko fi war a dugal actuellement mooy sama ñaareel yóbbu sama papa maaka dimbali samay mag yu jigéen actuellement mooy sama ñaareel waaw maa ngi sant ñëpp nag. dégg nga solo Ndeye Gueye nga li mu wax loo ciy dolli yow. laa ci dolli kii boo xee pare damaa war a teg dara war ma cee teg dara yaa ngi may tooñ. ma ciy teg. man yaay yaay tëj yaay ya tey nag yaay sa kilifa d'accord mais moo joxe ndigal li yaay tëj yaay tëj wax ji. waaw euh, maa ngi gërëm Sénégal yëpp. <laughs> dafa am dafa am loo xam ne dafa dafay dafay ñëw sam bopp mooy suñu suñu mag suñu xarit ñu ngi koy nuyu Tyson waaw dafay wax benn wax bu am important boo xam ne bi mu ko waxee yàgg na mais vidéo bi léegi la si gars yi commencé jot di ko publier mu ne mu ne mu ne noon noon bu gën a garaaw ci noon mooy noon noon noon bu la noonoo ba pare am xel maanaam noonu bu am xel mu ne xarit dëgg xarit bu dëgg dëgg dëgg mooy xarit bi la bëgg ba pare am xel mais bisu tay bi maanaam dama dama dama si jàngat lu bare bare bare bare bare te li dafa am important dama bëgg dugal ko muy xarit dëgg dëgg dëgg waaw xarit dëgg mooy xarit bi la bëgg ba pare am xel waaw noon bi la bañ dëgg mooy noon bu nekk son noon ba pare am xel te yàlla ñu yàlla musal si loolu. noonu bu dof da day yombaraa jàpp moom. waaw yàlla ñu yàlla musal nit booy booy booy ànd ak moom nga nekk sa xarit man boo ma yëgalee ma ñëw soo ma yëgalul ma ñëw. te ñun ay taalibe lañ ay bayfaal lañ ku ñu woo ci yoonu sëriñ bi dañ la siy fekk si booñ ci woo dañ la siy fekk si ndax màggal Tuubaa bu jotee walla wala wala wala gàmm yow boo nee taalibe seex rek doo xaar ku la woo da ngay jóg waaw kon boo nee papa sama xarit la bu xewlee doo xaar mu la da ngay sol sa dàll nga ñëw. daa boo ah, daa am ñoo ñëwuñu. non non non non benn message la bu may jàllale rek non xam nga man damay man man man du ma du ma nekk mu nit boo xam ne damay damay denc dara déedéet. gërëm naka sama benn xarit koo xam ne jàpp na ci ndog yi sama papa sama xarit sama sëriñ sëñ ab laay Diop xas waaw. sama xarit la sama sëriñ la ma koy nuyu di ko ziar. waaw ñu ngi koy koy nuyu bu baax a baax sëñ bi ziar naa la bu baax kontaan naa mbokkum ndeyum saa neex kontaan naa lool sama xol sedd na guy ci yow ko ñàkki ñaan nga yal na la yàlla defal jàmm di nuyu sama yaay umu salamata wan di nuyu Jaynaba fële ca Paris jëy na ba cosmétique bi ko nuyu du nuyu Amina du nuyu Sonia du nuyu sama xarit ñi nekk France yëpp maa ngi nuyu ñëpp ñoom aram ñaa ñàkk sikk maa ngi nuyu ñëpp di baalu sénégalais yëpp ak di nuyu sama jëkkër sama xarit liiru jaan nga xam ne moom dafa maa séddoo moom dafa maa bëggal boppam barke borom tubaab mais Kaja gis naa ko fi nee na léegi ñëw na sa koñ nangu say fans Kaja Diop xale yëpp moom lañ bëgg xale yëpp Kaja lañ bëgg <laughs> ah, lii ah yaay tëj vidéo bi diggante bi loo ci wax mais looy wax ci lii tamit ci lu gàtt rek liiru Babacar sant yàlla rek ndax kii nee naa suma doom la maa ko yar ako ko dalal baa nday suma jigéen la comprendre nga li ma leen di ñaanal yàlla na leen yàlla lafal cat te musal leen seytaane at làmmiñ tuu xol bëggante noo tàqalikoo waaw tuu xol bëggante noo tàqalikoo waay loolu yàllaa ko def bëgg muy dëgg neex bañ bañ nangu loolu yàllaa ko def tuu xol noo tàqalikoo loolu dañ ko lafal cat rek te ñaanal ko xale la juddoogul defagul dara daa nekk ci yoon nan ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla lafal cat waaw te ñaanal jabaram ci nag jabar ju mat jabar la ay aawo yëpp sunu meloon ni moom. ay aawo yi la ay nu mu mel. ah man daal dama ne aawo yëpp sunu meloon. sa aawo nu mu mel ne la aawo yëpp sunu ni moom rek la jeexal. mos nu mi ngi fi baax rek. waaye meloon ni nday ay aawo liiru. ah tubaarkàlla allah waaye nday yàlla ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla lafal cat baax na yaatu na ouvert na. loolu la aawo di jëriñ képp yaay Fall la waaw yaay Fall la waaye jëkkëram tamit baay Fall la taalibe sëñ Abdou Karim la. man lii du na am ñaareel moom. du ma am ñaar. may laaj pourquoi du ma am ñaar man may baay Fall war am ñaar ba ñett ba ñeent eh, attention Babacar bu ma fontoo waa dimbali ma ngaa gudd na jàmm xewal yàlla na yàlla defal jàmm ñu yàgg koo féete vraiment lii dafa neex. ñow woote dafa joxe ay ndogu vraiment ñu nar a sikkar fi ñu ay taalibe lan ay Baay Faal lan ci kaw ci kanam rek barki Sëriñ Bamba barki Maam Charaay ma fal ay ay ay Taala Njaay ay sëñ Siise mu sëñ Babacar kenn moom di la boo xal at sëñ Sàmm Duur da lay may ñaanal di la boo da lay ñaanal di la bokk at sëñ Xaadim Kañ ma ci Espagne da lay ñaanal di la bokkal lii lu koy fay ah.